bonbons. De noq National à Mbaye Pétao, il n'y a pas eu de respect entre vous, les gars. Déjà, bonjour, les gens te, te regardent. D'abord, commence par les salutations. Salam alaikum, maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa digg Guédiawaye digg Ndakaaru di nuyu Sénégal di nuyu waa Mbour. lu <laughs> tax nga nuyu waa digg Guédiawaye ak waa digg Ndakaaru. ñu ngi digg Ndakaaru. kon fii mooy. Ngaaka ci confirme fii di ngi Ndakaaru la wala. bu dee mooy dëgg Ndakaaru de jàpp ni toog si lu ñaaw kon. <laughs> ara déjà seytaane nga génn ci mais y' a pas eu de y' a respect dans le clash processus bi fi mu jugee fi mu jaar avant de avant de avant de dire le moral il est bon est-ce que fi affaire bi jaar. bon ba yegg fii tout est ok. bon dama lay fàttali benn affaire. Mhm. daaw Ngaaka Blindé concert bu mu dem ya yabe avait milliers de personnes yoo xamante ni chaque instant bu Ngaaka ne leen and seen caméra yi pum pum pum booy lu ñuy tontu. duul duul égal. pop. eh duul égal. waaw digg Ndakaaru. <laughs> that's je pense. kon da ngay xool ñaari saison yëpp moom duul la wax ñu ne day <laughs> te duulay. je pense. <laughs> that's it. pour juste dire que ni méchant wul woon kon bu tey jot mu wara a du dëgg. damay mhm. gis sax bu ngeen ci wax ba mu foofu ngeen naan Baba Ndiaye yaa looy tëb yaa day digg Ndakaaru <laughs> that's it you damay wax que si Sénégal nañu xam benn affaire nañu xam benn affaire si Akhlou Brick Baba wax na ko. c'est un gars très moo fi indi 24 heures non Baba Ndiaye indiwul 24 heures man maa indi 24 heures. Baba da doon tëb 24 heures yi. yeah 25 heures lay def. waaw maa indi 24 heures. te j'ai toujours respecté 24 heures. te ba suba ba ginnaaw suba bu dul Baba Ndiaye dina nekk Modou Ndiaye wala Samba Ndiaye Akhlou Brick du dépasser 24 heures. léegi. ça c'est c'est énorme quand même. yeah ma lay xamal. Mm-hmm. mooy quand on est en clash avec Ngaka Blende, pas d'animosité. Ngaka, c'est un frère Bohamandani. Je ne peux pas le Ça, c'est un, un truc que je ne peux pas dama koy waxaat. baaba est que doo xalaat digg Dakar aussi baaba dafa neex. <laughs> you mm-hmm. dafa neex nag ñaari façon. dafa neex parce qu'il est comique. dafa neex a defaral. dafa neex a duma. <laughs> mais mais moom nee na benn point ngeen marqué yéen. benn point man je marque pas de point man du def hip hop pour point you know parce que sooy rap pour point tu veux sortir gagnant ou vainqueur battre Baba Ndiaye sur un clash me fait pas un vainqueur yóbbu ceeb sama kër c'est ça qui fait un vainqueur. jox dund njaboot yi. beneen bi mooy que ni en terme de clash un terme de li ñuy wax ni yëpp. xam nga lu ci nekk. Mm-hmm. la fait que ma accepté esprit de businessman bi ngaa ko accepté le fait que man ak moom dañ doon clashante kenn fayuñu ñu fayuñu ñu war a clashante adachi ah, mais yow est-ce que nekkul piège bu ngeen ma dugal man dugalaale ci ngaaka non parce que da ngeen wax yéen na ngaaka njëkk a tàmbali ngaaka bi mu tàmbalee après ci ci moo ci topp après bon ngeen door a génnee noxo national bi donc yéen a mujjee kàddu gi te mbaaba moom nee na pare na. non pourtant affaire bi mën na leen dugal ku à tout tout instant. pour vous dire mujjee bi ça te fait pas taxul ñu déglu la ça te fait pas un vainqueur mujjee clash. waaw du dëgg. waaw y a eu des art y des artistes yoo xamante ni clashante nañ am ku mujjee clash bi mais mënul suul sax la fa waaj a bàyyi. you know donc kon mujjee bi du dal du dara Baba Ndiaye bu defoon dix sons mën naa def benn son benn bi gëna a histoire. mën naa def man dix son baaba def benn benn bi gën a marque histoire daa si mm-hmm. parce que yaa moom sa kër boo tëddee xale yi romb la di way sama way te woyuñ sa way looy ma gagné nañ ma ah mais daa donc affaire bi du loolu man bi may def le truc c'était pas baaba je l'ai dit et je le sama classe c'est pas un truc à Baba Ndiaye se un truc à ce beau public bi toog nii di enjoy music le 2 décembre ce public là qui sera là dañuy enjoyaat musique le 2 décembre. on en parle le 2 décembre ma ñëw. on en parle. waay ñëwal. est-ce que le 2 décembre ce que Baba Ndiaye vient de préconiser c'est de faire un show à chacun d'entre vous de son côté sur son ring parce qu'il y a il am na benn mise en scène bu gars yi prévoir ku nekk ak ringam est-ce que da nga bëgg ce jour-là bu ñu bàyyee bit bi nga togg ci scène bi ñu yàq ci scène bi gars yi lekk en live. Euh, Sidi Diop sax mën na togg ci scène yàq ci scène. maa ngi gis Pape Sidi. waaw doo rama la iri dóor la doo fiiri. that's ngi gis benn baafal dem langal kaabal. ça c'est pas. ça ça ça ça c'est. hip hop. ku ci jaarul mënoo dem. donc man pour safal. yeah safalkat la Eric mi. <laughs> Moi, je, voulais simplement dire que, à, à l'heure qu'il est aujourd'hui, on n'a pas encore défini la forme de ce que l'on allait faire tous ensemble le décembre. Euh, ce qu'il faut retenir dedans, c'est que ce, ce, clash, cette confrontation qu'il y a entre ces artistes, c'est pour le public, c'est pour leur